cosaanal asamaan ak suuf yàlla dugal na nit àjjana jox ko ndigal lii cosaanal asamaan ak suuf ba ñu leen di sàkk mooy lii bés ba yàlla aji sax ji sàkkee suuf ak asamaan genn garab nekkagul woon ci kaw suuf te genn gàncax saxagul ndaxte booba yàlla aji sax ci tawagul te nit kuy bay amagul waaye mbënn di balle ci suuf di tooyal fépp noonu yàlla aji sax ji mool nit ci pëndu suuf sol ngelawal dund ci paxi bakkanam nit daldi doon boroom bakkan naka noona yàlla aji sax ji jëmbat tool ca biir àjjana fa féete penku ba tàbbal ca nit ka mu bind yàlla aji sax ji nag saxal ci suuf lépp luy garab gu meññeef ma rafet te neex a lekk mu def it garab gay tax a dund ca diggu tool ba moom ak garab gay tax a xam lu baax ak lu bon amoon na dex guy balle àjjana di suuxat tool ba dale fa nag séddalikoo def ñeenti wal turu menn wal ma di dexu moo wër réewu awila mépp wurusa nga woon ca réew mooma di wurusu ngalam te it ndàbb lu neex a nga fa woon ak per yu jafe yu ñuy wax onyx ñaareelu dex ga di giyon wër réewu kuus mépp turu ñetteelu dex ga di idekel féete réewu asiri penku ñeenteelu dex ga di efraat yàlla aji sax ji nag jël nit ki tàbbal ko biir toolu àjjana mu di ko beye ka sàmm yàlla aji sax ji sant nit ki ne ko mën ngaa lekk ci mbooleem garabi tool bi waaye bu lekk ci garab gi tax a xam lu baax ak lu bon ndaxte bés boo ci lekkee kat li wér mooy fa ngay doxe dee yàlla aji sax ji daldi ne wéet baaxul ci nit kon dina ko bindal ku koy jàppale te jekk ci doon wéttalam loolu fekk na yàlla aji sax ji sàkk ci suuf njaa àll yépp ak njanaaw yépp daldi leen indil nit di seet nu leen nit di tudde te tur wu mu leen jox muy moom ba mu ko defee nit kooku di aadama tudd jur gépp ak picc yépp ak rabi àll yépp waaye fekku ca ku koy jàppale te jekk ci doon wéttalam bi loolu amee yàlla aji sax ji nelawloo aadama nelaw yu xóot ba muy nelaw nag mu rocci genn ciy faaram fatte pax ma aw suux yàlla aji sax ji bind jigéen ci faar gi mu jële ci aadama indil ko ko aadama ne tonet daldi ne waaw kay nag kii moo bokk ci sama yax ak sama suux dees na ku tudde jigéen ndaxte ci góor lees ko jële looloo tax góor di teqalikook ndeyam ak baayam ànd ak soxnaam ñuy kenn ku góor ki ak soxnaam ñoom ñaar ñépp yaramu neen lañu defoon te amuñu ci woon genn kersa booba jaan moo gënoon a muus ci rabi àll yi yàlla aji sax ji sàkk yépp noonu jaan ja ne jigéen ja ndax wóor na ne yàlla ne buleen lekk ci doomi genn garabu tool bi jigéen ja wax jaan ja ne ko mën na noo lekk ci doomi garabu tool bi kay waaye garab gi ci digg tool bi la yàlla ne bu leen ci lekk bu leen ko laal sax lu ko mooy ngeen dee jaan ja ne jigéen ja déedéet du ngeen dee waaye yàlla xam na ne bés bu ngeen ci lekkee seeni bët dina ubbiku ngeen mel ni yàlla xam lu baax ak lu bon jigéen ja dafa gis ne garab gi rafet na niru na lu neex te mat a bëgg ci kuy wuta am xel mu witt ci doom yi lekk jox ci jëkkëram ji mu àndal moom it mu lekk seeni bët daldi ubbiku ñu xam ne def nañu yaramu neen ba mu ko defee ñu ràbb xobi garabu figg ngemboo gannaaw loolu ñu dégg tànk yàlla aji sax ji muy doxantu ca tool ba fekk kër gi sedd ñu daldi fexe làqu yàlla aji sax ji ci biir garabi tool bi waaye yàlla aji sax ji ne aadama ana nga mu ne ko damaa dégg say tànk ci tool bi tiit ndax yaramu neen laa def ma daldi làqu yàlla aji sax ji ne ko ku la xamal ne dangaa def yaramu neen mbaadu danga lekk ca garab ga ma la aaye waay aadama ne ko jigéen ji nga ma booleel de moo ma jox ci garab gi ma lekk noonu yàlla aji sax ji ne jigéen ja yow li nga def nii mooy lan jigéen ja ne ko aa ah, jaan de moo ma nax ba ma lekk ci yàlla aji sax ji nag ne jaan ja gannaaw def nga loolu yow rekkay alku ci rabi kër yépp ak rabi àll yépp dinga watu di lekk pënd sa giiru dund gépp dinaa def mbañeel sa diggante ak jigéen ji ba dëddale sa xeet ak xeetam muy toj sa bopp nga di ko màtt ci testen yàlla teg ca na jigéen ja dinaa taral sa metitu mat ci metit ngay wasin sa bëgg-bëggu bakkan dina la xiir ci sa jëkkër te moo lay teg tànk mu tegaat ca ne aadama gannaaw dégg nga sa waxu soxna ba lekk ci garab gi ma la aaye dinaa rëbb suuf ndax yow coono bu metti nga ciy dunde sa giiru dund gépp suuf dina la meññalal ay dég ak i dagg doo lekk te beyoo sow ñaq ngay dunde ba kere ngay dellu ci suuf si ma la jële ndaxte pënd nga te dinga dellu di pënd aadama nag tudde soxnaam awa loolu di tekki dund ndax mooy ndeyu képp kuy dund gannaaw gi yàlla aji sax ji sàkkal aadama ak soxnaam ay yérey der wodde leen yàlla aji sax ji daldi ne léegi nit mel na ni nu neey xam lu baax ak lu boneey kon nag bu mu tàllal loxoom di witt ci doomi garab gi tax a dund di lekk bay dund faw noonu yàlla aji sax ji génne ko toolu àjjana muy bay suuf si ñu ko sàkke da ko dàq ba noppi teg ca penkub toolu àjjana ba ay mbindeef yu tudd seru benn boole ca jaasi juy xuyi xuyi tey dem ak a dikk di wattu yoon wëjëm ca garab gay tax a dund gannaaw loolu aadama dëkkoon na soxnaam awa mu ëmb am kayin mu ne am naa doom ju góor ci ndimbalu aji sax ji awa teg ca rakkam abel abel di sàmm kayin di bey ñu dem ba mu yàgg kayin sàkk ci mbeyam jébbal ko aji sax ji màggale ko ko abel moom jébbal ko nebbanu jur ga jëkk juddu ca géttam aji sax ji nangul abel waaye nangulul kayin kayin nag mer lool ba ne foññ aji sax ji ne kayin lu la tax mer ba ne foññ ni soo defee lu baax des na la nangul soo deful lu baax bàkkaar a ngi lay yeeru ci sa bunt di la tërëw ka wut waaye yaa ko war a man noonu kayin siq ak rakkam abel wax ba mu ko defee ñu dem ca àll ba kayin dal ci kaw abel boom ko aji sax ji ne kayin ana sa rakk abel mu ne ko gisuma ko de xanaa maa war a sàmm sama rakk yàlla ne ko loo def sa deretu rakk jaa ngi yuuxoo ci suuf ma di ci dégg léegi dinga alku ba suuf du moyu la moom mi ubbi gémmiñam naan sa deretu rakk ji nga tuur boo beyee dootul nangu dinga dëkke dang-dang di wëreelu ci àddina waaye kayin wax aji sax ji ne ko sama mbugal diis na lool ba attanuma ko ndegam tey jii danga ma dàq xañ ma sa jataay dinaa dëkke dang-dang di wëreelu ci kaw suuf te kon ku ma gis rey ma aji sax ji ne ko kon nag ku la rey yow kayin dina jot juróom ñaari yoon lu ko raw noonu mu sàkkal kayin màndarga ba ku ko gis du ko rey kayin daldi bàyyikoo ko ca aji sax ji dem dëkki réewu nodd fa féete àjjana penku loolu kayin dëkkoon na soxnaam mu ëmb am enok ci biir loolu kayin sanc ab dëkk dippee ko doomam ju góor enok enok jur iraat iraat jur mexuyayel mexuyayel jur metusayel metusayel jur lemek lemek nag jël ñaari jabar aawo bi tudd ada ñaareel bi di silla ada yabal mi cosaanu sàmm yi màngaan teg ca yubal mi cosaanu ñi mane xalam ak toxoro la moom jur tubal kayin mi tëgg lépp lu jumtukaayu xànjar ak weñ tubal kayin am na jigéen bu tudd naama noonu lemek ne ay soxnaam déglu leen maa yéen soxnay lemek teelu maa yéen ada agsi la nitam a gaañ ma boom gonek jàmbaar dóor ma ma faat kayin kay lees di fayul juróom ñaari yoon ne bu dee lemek mii muy juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar bi loolu wee aadama ko soxnaam mu am doom ju góor tudde ko set loolu di tekki may ndax dane yàlla may na ma weneen askan mu wutu abel mi rey setit am doom ju góor tudde ko enos fan yooye lañu tàmbalee tudd aji sax ji di ko wormaal